barke Cheikh Amadou Bamba boo may laale ma fenal boo may laal di wat barke borom Touba Mbacke ana rasmo boo ma laale naa ko rek boo boo ma laale tëj barke Cheikh Amadou Bamba dama ne la fii laay dëggal ndeyam taxaw ba ba kenn tudd moom ba dëggal ndeyam boobu du ma ñii de maam booy bu ma ci laal ma katt ndeyam journaliste yi journaliste yi je vous prends en témoin journaliste yi je vous prends en témoin booy bu ma ci laal ma katt ndeyam waaw salaamaaleykum waa Sénégal donc maa ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp euh, di leen ziare ci weeru koor bi tey nag dama ñëw pour def benn précision ci loo xam ni dafa xew fan yi ñu koy partager ci réseaux sociaux yi te wane beneen bëgg a wane beneen xar kanam ci Mame Goor Diazaka sa waay salaam ku ko dagul du nàcc dafa am loo xam ni dafa am mooy dafa am benn société boo xam ni dafa nekk fii ci Tëngéej sorti bis mais profité nag ci occasion bi di remercier ñi nga xam ne man ak ñoom ñoo bokk cité bii nga xam ne fi dëkk muy cité Almadina ak cité Ndiazak mu am benn société boo xam ni ñëpp xam nañ ko fii muy société Bizak béton di def exploitation de béton ñun ñu doon kaas mooy dañuy kaas ni société boo xam ni day def pollution ci zone industrielle la war a nekk fii zone d' habitation la du zone industrielle man loolu laa doon kaas leneen li ci mooy problème mu santé publique parce que léegi corona bi bëri na tuberculose bëri na pneumonie bëri na te man mii di wax ak yéen j'ai perdu ma maman sama yaay dafa gaañu il vingt cinq jours te bokk na tey jii ci li ko gënoon sonal mooy wàllu noyyi parce que pollution air bi sama yaay dafa gaañu il vingt cinq jours te bokk na tey jii ci li ko gënoon sonal mooy wàllu noyyi parce que pollution air bi mu doon noyyi fii baaxul ñu am suñu ay voisins yoo xam ne tey jii yor nañ ay këyit yu leer nañ yu wane ni dañoo feebar te poussière moo leen feebarloo waaye léegi dañuy toog di xaar ñu ñuy rey à petit feu te duñ ko dénoncé sànniwuñu xeer taaluñu pënu dóoruñu kenn dañoo dénoncé li nga xam ni moom lañuy ñuy dund du lundi au dimanche di ko dund du premier janvier au 31 décembre di ñaan nag l'état du Sénégal bu ñu amee idée xeex loolu dañ ko xeex pacifiquement porter plainte au niveau de la gendarmerie de l'environnement may taalal sama loxo képp kuy liggéey ci environnement képp ku nekk ci environnement nga jàppale ñu ci lii nga xam ni mooy li xew fii ci Tëngéej ci usine bi nga xam ne mooy usine bizarre mu nekk société boo xam ni pollution la ñuy def keroog ñu jógee seen société dem importer ji ay nit indi ci suñu biir quartier bëgg leen waxloo au nom de notre quartier te fi mu ko doon defee ak sama kër benn la ma génn taxaw sama bundu kër di wax ak journaliste yi pour xamal leen ni ñii dëkkuñu fi tey bu waa kon bi génnee léegi dañuy fekk ñoom incident mën na ma jóg di ko wax benn. ma daf ma ba ma taw je me suis moo tax bi mu ñëwaatee di ma teg loxo ma ne ko boo ma tegee loxo ma nangamtaan léegi nag ka bëgg a génne nangamtaan rek lay génne saaga bi lay génne mais ñun du ñu ay saagakat ay nit du ñu yar lañ ñi nga xam ne peut-être dégg nañ ko te mu déranger lañ maa ngi jégalu ñëpp ñu li ñuy xeex nii pour santé publique la affaire pollution ñi ciy profité ma di partager ay messages yoo xam ne dañu bëgg a profité wane loo xam ni euh, lu ñaaw la ñun lu rafet rek lañuy def. du ñu ay saaga du ñu kuy saaga mais benn moment utiliser nañ lu mel noonu tamit pour dissuader leen parce que nit ki bu taxawee yu armé yor ay euh, matraque yor ay euh, nu mu euh, ay ay laser taxaw di ñu di ñu jéem a tiital il faut tamit nga jëm nga tiital leen ci ci moyen bi nga xamante man instant boobu yoruma fetal yoruma jaasi yoruma yor ma paaka lenn rek laa mën. sama làmmiñ laa am pour dissuader leen ma jéem leen dissuader donc nag ñuy partager loolu nañu xam ni bala ngay partager dara da ngay xam source bi encore une fois ñi nga xam ni peut-être wax bi déranger na leen saaga yi maa ngi taalal suma loxo ñëpp di jégalu ñëpp ci barke weeru koor jërëjëf. parce que Cheikh noonu boo may laal di wat barke borom Tuuba Mbàkke bi ana restaurant boo ma laalee naa ko de boo ma laalee tëj barke Cheikh Ahmadou Bamba dama ne la fii laay dëggat ndeyam taxaw ba ba kenn ba déggal ndeyam boo may tudd di dee boo may tudd di dem si armée lu leer naa bu ma laal bu ma jege boo may laal ma lay fital boo may laal ma lay fetal booy booy bu ma ci laal ma toj sa lëfal ndey man du ma ñii de maam booy bu ma ci laal ma katt ndeem journaliste yi journaliste yi je vous prends en témoin loolu fetal laay journaliste yi booy bu ma ci laal ma katt sa ndey man du ma ñii de booy bu ma ci laal ma toj sa lëfal ndey non booy bu ma ci laal ma katt ndeem booy bu ma ci laal bi laal ñii mu naan ay naar jarale gën de la ma si gën a laal benn booy bu ma ci laal ma katt ndeem ma naa la ko benn boo si ay naar dina ñëw suñu dëkk di ñu di ñu rey ay ay ay Sénégal ay traite su ñu dina la booy bu ma sinal ma dëgg sa nay bal fu na fexe ba nga xam ne nii lépp lu ñuy génn fii mooy bu mooy fi dëkk yow leen ñu génn ñu génn ñu génn rek ñu taxaw kan mu dëkk bi ci ban ñu génn Thank you.